ak El Hadj Ousseynou Ndiaye daal jàmm ci xibaar yéen i nga xam ne rek moom la ne ko bàyyi a nekk ay bés ndax yëngu-yëngu yi nga xam ne rek boobaak léegi ma ngay am di nga xam ne nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci kujjeeg Sénégal ñoom kay jamono ji dinañu wàcc ci mbedd mi laa la wax ngir continuer li nga xam ne rek moom moo di ABC ne ma Aline Badara Cissé tànki jàmm yi nga xam ne rek ma ngi ko ca doon dox waaye nag mel na ni yëf yi kay jamono ji ba léegi jeexul yéen i duñu xam ne mbir ya ma ngay wëy ci réewum Sénégal Quotidien yéen xam ne kay jamono ji kàddu yi nga xam ne rek waras na ko yëkkati ci fànn gu mel mooy kàddu yi jàmm ne ko maître na ko te it ko te nag yàq ko te jamono joojee bu ko nekkoon yàq ko bàyyi li muy def ci mbirum Ousmane Sonko Karim Wade di doom ji ci yéen kaay gi xam ne jamono ji kay ñoom rus nañu def rawati nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di am ambassadeur yi nekkee ci réewum Sénégal jamono ji tiit dëgg la ñu def Macky Sall ñi nga xam ne rek ñoom ñoo faatu ci yëngu-yëngu yi na xam ne moom kay la mu ko xamal moo di kàddu yi ña xorom yi nga xam ne rek jot na ko yëkkati moom Idrissa Seck lii nga xam ne rek wax na ko amul lu mu mën a yëkkati loo xam ne dina saf askanu Sénégal ndax lu bëri da ko wax weddiwaat boppam Vox Populi yéenekaay duñu xamal ne mbirum Ousmane Sonko koy jamono ji l'observateur di ñu xamal ne googale capitaine kay mooy ki nga xam ne rek moo toppatoo woon lu jëm ca enquête baak xam ne rek moom moo di ba ak woyofal am na waaye nag mën naa feccee ñu xamal ne njiitu réew mi kay mel na ni jamono ji ak yolomal am na ca googale ka ñi waaye mel na ak El Hadj Ousseynou